yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na weeru koor pakk la weeru koor pakk la bu fekkee kenn ci yéen woor na koor dugg la nga woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kookee woor na góorgóorlu ba bu mbóosóor lan mooy mbóosóor mooy caaxaan di def ay gi di lépp di maye di reetaanloo nit ñi wala dugg ci wàllu humour ñi nga xam ni seen métier ñoom ay humoriste lañ dañoo war a ragal yàlla ci weeru koor boog ñu jël vacances comme munuñ koo bàyyi te xam nga ni métier humour li ci ëpp fenn la daanaka lépp fen la képp koo gis mu nekk humoriste rek jàppal ni fenkat la mooy koo xam ni waxtu wu nekk da ngay sos ngir nit ñi reetaan tey ñun suñuy humoriste da nga leen di fekk ci weeru koor ñuy foyee weeru koor nga xam ni weeru koor day jot kenn ku nekk ci ñoom def sa bopp imam ne dangay ngay ubbee ci diine ay télé di la fay ci loolu ay rajo di la ci fay nga xam ni boo yeboo télé ak rajo yëpp nga jàpp ni ñi ci ëpp ay yàqkatu diine lañ ndax lu mel ni weeru koor nga jël benn waay. di ko fay muy fawee nit ñi ci wàllu weeru koor di wax lu yàlla waxul ça veut mooy istihzaau bi diin te xam nga ni loolu nawu la ci weddi yàlla fooyee diine borom bi nee na qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un laa taatadiru qad kafartum baada imanikum borom bi nee na moo ndax yàlla ak i aaya alquran ak yonentam ngeen di foye kon amatu leen ngànt weddi ngeen tey nga jël ku mel ni benn humoriste boo xam ne mi ngi ci benn télé wala ñaar du ma tudd ndax yéen ñu bari xam ngeen ko nga xamante ne dafay toog def boppam imam nit di ko laaj ci weeru koor mu naan lekk mburu dagan na ci weeru koor naan ndox mu sedd dagan na ndox mu tàng moo aram ci weeru koor nga xam ne <clears throat> alquran dafa ñëw tëral ay tegginam sunna ñëw tëral ay tegginam borom bi teral tegginam yonent bi sallallahu bañ ko ba ni ku woor ci yéen bu mu kaf ay kafu caaxaan bu mu comédie bu mu ree ay reewi caaxaan yow nga ñëw jël diine yàlla di ko foye jël sa kaala jël say lonet ne ya ngay fatwaa ci diine li gën a dangereux nag mooy suñu réew dara yàlla neexu leen dañuy dem ba saay-saay boobu ñu ne moom mooy numéro un ci humoriste ci wàllu àdduna ci suñu dëkk nga xam ne dañuy fooye diine léeg-léeg mu wax ay baat ci diine ba pare di fecc léeg-léeg mu wax ay baat ci diine di foo ñu di leen seetaan ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku woor ci yéen falaa yarfus bu mu caaxaan waay nga xam ni kon caaxaan day yàqu koor wala yasxab bu mu bëbli maanaam bu mu nekk koo xam ne day fo te xoola suñuy tele dañuy tuub ba 18 h ñu yàqaat tuub bi nan lañuy def kenn ku nekk ci ñoom commencé ngaa jënd ay sketch théâtre kat yi commencé nañoo fooye weeru koor di jouer ay sketch ci weeru koor commencé nañ koo jaay télé yi télé yi commencé nañ koo xëccoo léegi da ngay gis télé boo xamante ne day ut club théâtral am di leen fay pour weeru koor ñoom ñuy def ay caaxaan nga di ko jàllale di ko dogloo nit ñi dem ba weeru koor jot nga teg benn théâtre kat bu bandi bu reew bu ñàkk teggin bu amul benn yar ci diine ak boroomam di fowee koor yow jullit bi yow nga woor bëccëg bi nga jàng al alquran def zikrullah tudd li la yàlla sant ba dara desul lu dul ndogu liggéey nga liggéey pompe nga bal bi pompe ba mu fees ba nga xam ni tëj écrou bi moo des nga jël paaka ne ko ci pucc nan lay def tëf lay yàq lay def mooy yow woor nga ba 19 nga xamante ni fi sa koor di ëppee solo ndax xayrul umuri xawaatimuha li gën ci mbir yi mooy fa muy tëjee nga xam ni foofu moo des ñu tëj rek nga am 100 pour cent ci tuyaaba nga ne komaj tele bi seetaan benn fokat benn fokat yàlla dogloowu la dogoo pour allahu akbar dogoo pour ay aaya ak hadis dogoo pour ñuy wax la lan mooy tegginu diine mais ñu tegal la benn caaxaankat benn théâtre benn fokat benn koo xamante ni addunaam yëpp foo la ko jàkkee nga di ko seetaan pour war cee dogoo yow est ce que moment boobu di nga a wax zahaba zamau wabtallatil uruq wa sabatal ajru insha allah di ko tala wax est ce que di nga wax booy ndogu bismillah déedéet mais léegi 19 heures 30 mi ngi jot ndogoo ngi waaj a jot ñu ngi taaj café taaj tàndarma taaj lekk yi taaj naan yi ñëpp ne nii télé bi bi ñu nee nii télé bi waxtu woowu waxtu ijaabatu duaa la waxtu nangu ñaan la yàlla nangul la say ñaan fàtte nga li nga war a ñaan yaa ngi seetaan benn saay-saay buy buy théâtre yaa ngi seetaan benn fokat buy fooyee diine yaa ngi seetaan benn comédien bu lay xañ ay tuyaaba nga di ko seetaan di ko seetaan ba ànd ak moom ñàkk ay tuyaaba yàlla mere leen dara jaru ko ci kaw suuf moo tax bépp jullit bu yore télé weeru koor soo ko mënee fay bañ koo taal moo gën rawatina nag bu ñu demee nag ba 18 heures dugg jëm nag dogu foofu moom fayal sa télé ndax li nga liggéey yëpp dañuy pare pour yàqu sa waa kër dañuy yàqule ndax jigéen ñi xamuñu dara ñu ci bari jigéen ñi moom nañ ni fo mooy àdduna toog di seetaan télé ñaata nit ñooy seetaan télé ba ndogu weesu ñaata jigéen ñooy seetaan sketch ci télé bi di ko seetaan ba ndogu passé heure bi la wax yàlla ndogul ñaanal jigéen ci seetaan na ba mu passé doog a ñëw nag léegi boru julli amee nga ko ndogu woo commencé faa nekk di tàngal nag di tàngal di tàngal pare pour lekk ana koor ga mais jaru ko woon koor gi dem na kan moo la ko xañ denn fokat moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na képp koo xamante ni bàyyi bàyyiwoo caaxaan wala ngay def caaxaan yàlla nee na bugguma sa xiif bugguma sa naan